ñu si li nga xam ne mooy soxla ndaje bi muy waajal màggalu Sëñ Abdu Xaadir te borom bés bi ñëpp xam ko ci diine bi li mu ci liggéey rawatina yoonu yoonu murit kon foo naa ne su bësam dikkee euh, état comme nañu koy sase rek mooy ñu jël lépp luy matuwaay pour gunge comme nañu ko waxee le comité d'organisation euh, liñ ci wax nag dégg nañ ko ci wàllu secteur yu bari Euh, lépp loo xam ne adio na rek pour que bés bi gën a yemb dinañ ko ci def xam nañ ne dina tombeek toujours ay nawet moo màggal bu mag ñoo yem kon taxawaay tamit foo faut ñu si suuraale facteur boobu noonu ci wàllu wér-gu-yaram foo naa médecin chef de région new fi mais daf ko fi teewal ndax dafa dem penku waaye dégg nañu engagement yi ndax foo naa ne loolu moom jàppandi na muy cinq postes avancés ak ambulance ak jumtuwaay yi mu war a àndal ci wàllu hygiène ñu war a désinfecté lu tolloog téeméeri bërëb ak euh, juróom fukk te commune bu Touba Mosquée war a également les services d'hygiène la ca des dañ ko jébbal ministre de la santé de sociale pour que produit yi mun a jàppandi ñu mën ko def semaine balaa màggal gi nga xam moo moo war a ñëw yeneen yi mooy ci wàllu dem beeg dikk bi muy tali bi donc li ngeen ci jot a dégg nañ ko muy ñeent. axe routier yoo xam ne dañ leen war a toppatoo muy entretien routier AGEROUTE jël na engagement ne dina ko dina ko def balaa màggal gi te loolu foog naa ne sax mën nañ ko dugal ci waajtaayu màggal bu mag ndax foog naa ne ñi ngi ci ci ay liggéey mais dañ leen di sant rek yi nga xam ne day impacté ci màggalu Sëñ Abdou Khadre ñu def ko priorité ba tant que suñu weesoo loolu ñu mën a continuer yeneen opération yi nga xam ne moo ñu jëmal ci màggal bu grand màggal ci Touba euh, dëgg la fan yee am nay forage yu nekkoon ci ay jafe-jafe waaye OFOR foog naa ne jublu na si ba ci yu bari foog naa ne mettre nañ ko en service mais yi nga xam ne mooy gën a am impact ci bërëb yi nga xam ne moom lañ gën a yéetewoo ci màggal gi yàlla mu ñuy defal sutura ba yooyu mi ngi dox waaye du tere nag euh, service technique yi dinañ ci liggéey ba yokku pression bi waaye également dinañ accompagner forage yi par li euh, ngeen àddu muy juróomi camion citerne yoo xam ne dèjà foog naa ne jàppandi na te nekk Touba maintenant mu des peut-être bâche yi nga xam ne fukk ak juróom la ñu war koo mën a lijjanti pour accompagner tout simplement dispositif normal bi muy wàllu forage yi nga xam ne moo mën a ravitailler les populations en eau su dee wàllu énergie ah foog naa ne kiy jiite service distribution Senelec moo naa ne moom moom bés bi comme ko mu le maire ndax màggal màggalam la waaye nag administration étant secrétaire na jël matuwaay rek li nga xam ne moom la ci war a def muy branchement provisoire yi toll ci fukk ak groupe électrogène mais surtout mu ànd ceeg mairie waa mosquée ndax am na ci loo xam ne éclairage public la ñaari ñooñu mënuñoo bañ a yëngoo ci liggéey bi kenn ku nekk loo mën a appuyer sa morom rek pour que affaire yi gën a gën a baax naa ne loolu lañ ci wax ndax tax day dimbale. également wàllu kaaraange ndax lëndëm moom fu mu am rek saay saay yi dañuy gën a mën a mën a liggéey te yaakaar naa ne loolu aussi euh, nañ ci taxaw foog naa ne mu leen permettre aussi ñu wax ne wàllu kaaraange dina jël matuwaay yépp ndax foog naa ne loolu mooy seen cœur de ba aar ñi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi ñu ñëw ci ci jàmm loolu foog naa ne commissaire bu Touba ak gendarmerie sapeurs kenn ku nekk ci wàllu ressources humaines di nga jël seen matuwaay ba mën na liggéey la ci des rek muy wàllu saytu. nga xam ne wax nañ ko léegi mu jëm si service mel ni eaux et forêt ak commerce ak élevage ñoom seen liggéey lu ci bari ay contrôle la maanaam olof naan ko saytu kenn ku nekk ci fànn bi nga féete dina jël seen matuwaay ba saytu kenn ku nekk li nga xam ne moom nga war a def ba incha allah bi ñëpp ñoo xam ne ñëw nañ màggal si bañ see jël benn longaay loraange ndax wàllu ñam euh, ñu fexe ba produit yi nekk également de qualité lépp loo xam ne ay produits périmés ñu fexe ba génnee ko ci ci marché yi lëkkaloo koog service d'hygiène su ko defee am nañ ci yaakaar suñu borom mën nañ ci defal suñu borom li ñuy jeexal rek mooy ci communication loolu dinañ ko àddu ak Sonatel muy ñetti lignes yi nga xam ne ADS la ak benn modem mobile yi xam ne mu ngeen ci àddu Sonatel teewul waaye du tere dinañ ñu koy defee suñ pare ci réunion bi dañuy def ab tableau boo xam dañuy tënkaat lépp ndax tamit administration bind la kàddu yi jib na waaye kenn ku nekk dinañ ko bind ñu xam ne ba ñuy defee CRD bi lii la gaa ñi àddu woon lii ngeen jëloon engagement su ko defee kenn ku nekk am sa benn tubaab lu muy tuddee tableau de nga xam ne lii mooy sas bi nga xam ne moom nga sasoo woon euh, ci màggalu Sëñ Abdou Khadr bi kenn ku nekk góorgóorlu ci na ba suñu borom may ñu lépp loo xam ne mëbët la te ñu war leen cee gunge suñu borom may leen aussi kàttan goo leen mën a mën a yéene bi nag xamaa ne mi ngi ci parce que li des rek mooy ñaan suñu borom muy mottali suñ borom may leen ngeen mun ko mottaleeg jàmm di ñaan suñu borom ñu muñ seeg jàmm ci bés bi sëñ bi di encore une fois yóbbante néew ginnaaw bu ñu ziyaare doon sëñ Mountakha général des Mourides sëñ Cheikh Mbacke xarit général wax rek loolu lañu waroon tënk di ñaan suñu borom ñu muñ seeg jàmm incha allah lépp luñ ci ñaan suñu borom may ñu ko Eh, rawatina réew mi dal bi nga xam ne moom la ñuy sàkku rek suñu borom bi ñu ko def ci réew mi ba incha allah rabbi ñu mën ko fekke ni ñëpp te tal bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar yëkkati kàddu gi turu sëriñ si bi ñu toog jiite këru sëñ Cheikh ndax euh, alimaam Sufyaan ibnu Uyayna daan wax ne inda dikri saalihiina tanzilu rahma saa bu ñuy fàttaliku ñu baax ñi yërmande yàlla di wàcc réew mii nag soxla nañ fi yërmaande wàcc xat-xat yi bari na jafe-jafe bari na kon yërmaande yàlla wàcc wàllu xeet wi soxla nañ ko te waxtaane ak fàttaliku ku mel ne Cheikh Abdoul Khadir Mbacké nag mën naa wàcc yërmaande ndax wér na ne kaana min abadillahi salihin al mutamayisin li taxoon yàlla wàcce di wàcc jàll ci kaw suuf ci la mas liggéeyal ci yàlla liggéey bu rëy ba dellu ci borom lépp loo xam ne waroon na ko ci diine war ko ci njaboot war ko ci am réewam mu taxaw ci taxawaay bu gën rafet ba ñëpp seeral kooku bu ñuy lim saalixoon yi bokk na ci ñi ci jiitu te ñooñu nag lañu wax ne saa bu leen di fàttaliku saa bu leen di tudd yërmande yàlla di wàcc kon ñi ngi am yàlla am yaakaar bu baax ne fàttaliku bis bi ñuy waajal doon ñetti fan ci weeru muharram bi ñu dëgmal war a tolloog ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet yu ñu nekk bisub yërmande la boo xam ne. ca ba muy dooraa soosu waxtu jot at mu jot kilifa yi di ko fàttali la ci sëriñ mën bi raw bi la waxoon te ba bi dikkee jëmmal ko dundu àdduna lépp nekkoon yërmaande ci nit ñi amaloon njariñ xeet bi lool ci wàll yëpp jubawoon na boroom lool te yàlla nag du may di dong yàlla du may di dong démb ak tey ak ak ëllëg yàlla xàmmewu leen lépp lenn la kon wàccuwaay woo mu joxoon Cheikh Abdou Khadir Mbacké ba tey mi ngi ci moom kon saa bu ñu koy fàttaliku nit ñi da ci ñëw te it fàttaliku weesuwut jàng alxuraan jàng euh, xasida julli ci yonante bi daf lu baax bernde nit ñi te loolu lépp nag bokk na ci li ubbi bunti xéewal waaye bokk na ci liy fet fet balaa di dàq aw tiis kon bis boobu la sëriñ bi di woote di ko fàttali mbokk yépp bëgg ñëpp teew ci bàyyi ko xelit nag te ñëwee ci pas-pas ak yéene ñëwee ci pas-pas ak yéene xam ne daal dañuy fàttaliku waahid min as-saalihiin al-kibaar koo xam ne ci nit yàlla yi gënoon ko ci seen mbaax la bokkoon bokk ci imaam yi nga xam ne fii ci diine yi diine yi kenn du tudd mbaax tudd diine ci réew mi te tuddoo kooku la ñuy waajal bisam di ñaan yàlla ñu àgg ci ak jàmm waaye liñ ci yaakaar lépp ñu am ko la sëriñ boo xam nañ ko jot li mbokk yi sant leen baax ñaanal leen sàkku it ci tasu tasukaayu xabaar yi seen yitte yu baax yu mel nii ñu fexe ba muy tasaaroo réew mi soxla na lool ñu fàttali leen seen nit ñu baax lu baax yàgg na fi ràññiku na ràññiku koo xam ne it jéggi na dayoo kon fexe ba nit ñi jot yi ndaw ñi man cee roy bu bu ëllëgee ñu mën a am mos new néew néew luñ mos ci lu jëriñu ma baax ñi seen àdduna jàkk seen àllaaxira ja loolu la sëriñ bëgg moo tax ñuy woote bis yi kon ñu koy fàttali ñëpp di ci woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu